moo ngi noonu ah Pape Abdou Fall dañ koy nuyu rek daal di waxtaan ak moom tuuti balaa ñoo dugg ci biir làmba ji Pape Abdou Fall nuyu nañ la. maa ngi lay fay yéen waa Leewtoo. ginnaaw ba ma la nuyoo ñu ngi lay gis ci lutte avec sans frappe yëpp fan yëpp mën nañ xaar Pape Abdou Fall mu tëgg lutte sans waaw maa ngi leen di ziar di ziar promoteur bi xew la tey muy Prince suma xarit la sama rakk la ñu dëkkandoo parcelle. donc euh, bii passé comme ni nga ko waxee Fallou Ndiaye moom itam suma xarit la suma rakk la moo xewle woon tey Prince xewle ba pare ñu bokk benn association boo xam ne mën naa ko jiite kon dafay jaadu rafet ma daal di fiy teew loolu rek la pour les soutenir donc partager ak ñoom seen ay moment et puis voilà c'est tout organiser lutte sans frapper autre là euh, ci adduna bul ni dara mën na du am lu dëgg waaw faut jamais dire jamais waaw parce que comme dis les américains rek we never know donc euh, kenn xamul daal ah mais daal on est là avec nos amis nos frères on tous euh, enchantés par la lutte lamb sénégalaise donc euh, moo waral suñu teewaay fii jàppale leen taxawu leen partagé ak ñoom def ak ñoom communion. kon ça dire que saison ren bi daal doo tëgg lamb simple. yow ma xanaa déggoo li non non I don't think so xalaatu. d' accord nga def beneen affiche Papa Sow Siteu di combat mag ñëpp di xaar kañ la. waaw comme Papa Sow Siteu moom euh, kañ la xam naa ni fan yu néew di ngeen ci xam dara euh, man damay nit koo xam ne baaxewu ma di spéculer déedéet damay bàyyi ba formaliser lépp administrativement parce que damay bañ ko ma ne yaaw fi waxoon. donc euh, mais am naa yaakaar ni bu soobee yàlla fii ay fan yu néew euh, képp ku nekk ci làmb rek dinañ la édifier nga xam parce que nag ñun ñëpp làmb lañ fi nekkal muy promoteur bi mbër mi yéen communicateurs yi yéen ñi yor reporter yi journaliste donc lépp rek na làmb avancer mais bu soobee yàlla fii ay fan yu néew bu ma ñëwee CNG ba régulariser danaa génn wax ak askan wi xamal ne lii la lii def nañu ko bis bii la lii lañ ci war a def su ko defee ku nekk xam fooy taxawee jërëjëf soxna si